Ni Dakar Actu ñom man Nous euh, wax sama secrétaire sax ñu baral wax leen parce que semaine bi gis ñu def article buma neexon nous ne woon le sax dama lay wax ñu bind lettre parce que lolu aussi CDP war def ku jël initiative nga de la protection nga bind ko féliciter, au nom de l'État parce que def nañu un reportage sur les enfants charité lire nako euh, nako en vidéo deux minutes trois minutes mais c'est c'est parfait li mu wax c'est parfait loolu la ñu ci presse parce que presse bi aussi ci CDPE bi nañu bokk enfin fa ñu nekkoon ñu dañu dugaloon presse bi ils avaient leurs représentants dans le CDPE parce que am liguey bo boo également meun nañ ko def ak ñom parce que xalé du terme bu nek ngay utiliser di wax ak mom même lañuy bindé da ngay gis légui mu ñu né cas de viol nga gis ñu ñu ñu xawa ñu xawa euh, euh, dindi worma dindi alors que amna lu travailler même li parce que nit ku ñuy sauver la beaucoup terme utiliser ci sa article rek lool mën na ko giiru dundam lu expliquer dans les moindres détails comme si ño taxawon di sétane de de de les remercier publiquement je ne son correspondant c'était même pas pour le reportage hein, son correspondant que mu nous ñu wax nous ko bu ko et puis même la lettre va va va suivre